boo bëggee sa réew di dégg askan bi nga xam ne moom la moom la wax mais tu es obligé de le faire man ak expérience bi ma am nekkoon ci biir. moo tax mbay waxee nii xam ni nga xam ne moom lañ ko mën a soppee parce que xam naa li nekk ci biir te maa ngi déglu peuple bi nga xam ne euh, actuellement mooy seen tawat di seen seen jooy. loo xam ne aussi peuple bi da koy jooy euh, saa su ne am na sax ñu ne euh, c'est la preuve je cite ah de de l'échec euh, du de la gouvernance de Macky Sall mooy l'immigration clandestine wala immigration irrégulière gis nañ drame yi mu jur fan yi ñu bari ne dara war lu ko lu dul politique d'emploi bu baaxul lan moo war a nekk la politique d'emploi bi permettre au Sénégal mu garder au moins ces jeunes là dans le pays. oui là aussi am nañ ci xalaat yu bari. mais bu ma ko doon tënk dama naan Sénégal problème opportunité économique la am maanaam euh, opportunité économique mooy boo nekkee ndaw. Mhm. wala ngay yëngatu. Mhm. Euh, boo amee institut mu wóor la boo ko dugalee fenn nga mën ci am loo xam ne dana yokk. noo def ba muy nooy def ba muy yokk. ba muy yokk. Mhm. mais fii dangay gis koo xam ne yore na 1 million. oui yore na 4 millions. bëgg nekkinam yokk gën a baax mënu ko am. xamul nu mu koy def xamul nu mu koy def. mu jaar ko mu aventurer dem dugg gaar mhm. opportunité économique c'est important moo tax ma ne man li may njëkk def sur le plan économique su ma toogee wala ñi ma koy jañse mhm. mooy dañuy créer un centre d'orientation stratégique économique loolu est-ce que du rejoindre agence yu bari yi Macky Sall non non non c'est différent lii agence non ma wax la rek mhm. loolu dañ koy jox benn professeur université économiste boo xam ne moo koy diriger ay anthropologue bokk ci ay sociologue bokk ci ñu saytu économie Sénégal lu tax lii mu am parce que ñoom seen xam-xam ci la màcc ñu ne ñu nag léegi daal bu ngeen tegee ci yoon bii dinañ dem Sénégal économie opportunité économique man fee am mais en plus de cela Macky Sall daf ma tafu sama projet daf hmm. mooy les tafu oui <laughs> hmm. guichet économique guichet guichet unique pour l'emploi ouais. des jeunes man maa ko génne bi ma koy wax am koo xam ne ci ñoom la bokk te nekkoon sama collaborateur. Ah mu woo ma de ne ma monsieur le de d'État dégg naa li nga wax moom la ñuy def man yaakaar naa sax ministre économie ot lu tax Macky dàq ko loolu ci la bokk <laughs> mu dem coupé collé rek dugalul ko. ñu naan guichet xaw ma unique de l'emploi au centre de Abdou Diouf et cetera mais quand il a vu la vidéo mm-hmm. antérieure bi nga xam ne moom laa defoon ci la bay concept boobu mu naan pôle emploi mais xamuloon lan man lu tax ma wax ko. Hmm. parce que da ngay dama ne man da ngay def des guichets pour l' emploi des jeunes. Hmm. dans tous les départements. boo xam ne boo ñëwee da fay fekk ANPEJ ADPME et cetera ñi nga xam ne ñooy former xale yi. Hmm. ñu def appel à la concurrence jënd benn benn mutuelle boo xam ne moo fay nekk pour gérer xaalis bi ñi am projet indi ko ñu xool tàggat ko ne projet bi de baax na boo ne par exemple dama bëgg a def mbay. dama bëgg a def càmm dama bëgg a def xaw ma eh, piscicu ah, ah, eh, aviculture ñu ne la bon d'accord léegi danañ xaalis bi duñ la ko jox matériel bi nga soxla danañ ko jënd léegi danañ la couver ba nga am ay ñaar wala ñetti weer wala boobu mais boobu dañ lay former. Mhm. boo demee nag ba ci kanam ba nga xam ne mënal nga sa bopp ñu soog laa bàyyi nga dem parce que am na ñoo xam ne ñii jigéen ñi ay cent mille francs la ñuy soxla. ñii ay cinquante mille et cetera. mais bu fekkee ne amul encadrement pour que cette activité yooyu ñu mën ko rentabiliser échec lay doon bien sûr boo ko defee euh, dana am un taux d'échec mais boo amee 60 pour cent 70 pour cent de réussite c'est déjà bien dana permettre ñu fixer les jeunes au niveau mmh. des localités. bien parce que dañ leen di former encadrer leen ci loolu. Mmh. en plus li ma wax nag. nga xam ne le centre d'orientation stratégique économique moo ñuy dimbale ñu Sénégal xam Sénégal fan la jëm parce que le président de la République il est président de la République il n'est pas économiste du tout wala même bu nekkee économiste amul recule bi nga xam ne recule suffisant la pour mu mën a xam euh, euh, fan la ñu jëm ay universitaires rek ñu ngi fi et cetera. sauf que mooy définir les politiques. mooy définir les politiques ñ mën ko cee dimbale. bu loolu amee euh, jàpp nañ ne émission lu bëri. day dañ sax parce que dafa war a dañ ce n'est pas normal que ressource bi ëpp ci ñun muy ndaw muy xale yi. Hmm, ñuy dem ñu jàppoon suñ maam yi yóbbu leen Amérique di leen jaay nga xam ne ñoom ñoo construire les États-Unis et tout tey de façon volontaire suñu ndaw yi di dem Europe di continuer di la di leen tabaxal suñu réew. te ñu mën leen di téye fii. waaw mais xam nga le bu ñu ba pare bu bu ñu leen rappeler seen i promesses rek ñu ne ah de toute façon de créer des emplois xaaral ma wax la est mos ngaa dégg Abdoulaye Wade c'est mon maître à penser mu defal la proposition mel nii est mos ngaa dégg Macky defal la proposition mel nii il s'agit pas tout simplement de def ay déclaration mais des propositions concrètes yoo xam ne ku koy dégg xam na lii mën naa am c'est ça la différence et c'est je vous ai dit moi j'étais un ouvrier politique je vais être un architecte politique vous comprenez l'aspect politique le président qui décide alors ça m'étonne un peu Habib Sy ma nga wax ci emploi des jeunes ba pare te waxuloo ci agriculture euh, parce que ñu bari wax nañ ne nag Sénégal gii kenn du ko développé te jaaroo agriculture ak élevage rawatina zone ba nga ba nga dëkk lan moo lan mooy problème agriculture Sénégal ba ab Ablaye Wade projet yi mu ci tegoon yëpp yu ci bari demul et puis comment faire pour que euh, le prochain président euh, man a def ay pas dans ce domaine-là Euh, loolu moom ma gën a neex boo ma laajee ci mbay mi rek parce que <laughs> man béykat laa doomu béykat la hmm. ma nekkoon sama premier poste mu nekk ministre agriculture hmm. ma amoon ci passion hmm. def ci ay jéego nag loo ci mën a dégg euh, li ma wuuteeg ñu bëri ci foofu man gëmuma ne agriculture dafa war a nekk post euh, secteur boo xam ne dañ koy jàpp rek pour mu créer emploi massif mënul am parce que boo demee ci réew ñi nga xam ne dañu développé ci agriculture dañ naan la téeméer boo jël ay juróom juróomi nit ñoo fa nekk di dundal ay juróom benn million nit askan wi yëpp mm-hmm. Sénégal jàpp nañ ne téeméer boo jël juróom benn fukk yi ba ca juróom ñaar fukk yi ñu ngi yëngatu ci mbay te mënuñoo dundal réew mi mënuñoo dundal réew mi ma ne agri loolu dafa war a jeex lu tax parce que boo gisee le programme détaillé pour le développement de l' agriculture Maputo 2002 ou 2003 ñu ne état yi ku nekk na nga fab 10 pour cent ci sa budget jëmale ko ci mbay mi man mii Habib Selo du keneen maa def proposition conseil des ministres président yi ñëw validé ko mais bi man bi may wax en terme d' investissement waxuma budget général ñu ñëw rek ne def nañu boo tax dama ne agriculture d'abord xaalis la bu fekkee budget bi dafa nekk juróom-ñaari euh, juróom-ñaari junni milliards juróom-ñaar téeméeri milliards yi ci mbay mi la war a dem ci mbay mi la war a dem mais waxuma ñu dugal ko muy loo xam ne lii ministre bi dañuy ciy jënd carburant di ci jënd ay oto yooyu waxuma la budget général budget d'investissement liy defar mbay mi su ko defee loolu dañ ko programmer peut-être cinq ans nga def des collèges agricole à travers le pays moo xam na nga koy def niveau régional wala niveau départemental jeunes yi nga xam ne dañu ñëw ba niveau BFM te mënuñoo jàll te mbay neex leen ñu xool lu ñu def dugal leen fa doomi baykat yi nga xam ne ña ngi ca kaw ga toog bu nawet bi jeexee amul lu ñu def ñu defal leen tamit niveau formation foofu machinisme maanaam tracteur yeeg semence yeeg intrant yi nan lañ koy defee. Mhm. bu ko defee nga daal di jël armée boole ko ci. lu tax ma ne nañ ci boole. armée armée waaw parce que mbay il faut nga am ndox te Sénégal ndox maa ngi ci suuf du jeex du xaaj armée surtout jeunes yi dañu yore matériel boo xam ne bii mën nañu foore yore woon nañ ko sax à l'époque <clears throat> ba man ma proposé woon président Ablaye Wade ne ko mais président matériel bi nga xam ne armée da koy yore dem di ko luye ay privé ñuy dem di gas ndox pourquoi doo utiliser armée mu wax ko ministère des finance ñu ne way euh, bu ñu utiliser armée armée bu parce que du fay taxe loolu mooy conception budgétaire économie mais boo yokkee le budget d' investissement de l' armée nga xam nañ am nañ toutes les capacités nga ne leen yéen dama bëgg mm-hmm. fii ak 5 ans ngeen réglé ma problème mu ndox waxuma ndox rek pour nit ñi naan mais ñu gas loo xam ne lii dañ ci man di bay. boole ceeg les pistes de production nga xam ne am nañu possibilité def ko. absolument mais c' pas une armée boo xam ne bii dañuy dem jënd ay armes et cetera <laughs> jox la pour xabalaatee armée nation. comme le disait le nation. comme le disait le président Senghor. bu ko defee jeunes yooyu nga xam ne da nga leen forme nga jël école cadre Riro Bambey. mën nga defar yeneen. développer leen defar leen ñooñu niveau bac nga fay duggee boo fa duggee niveau bac on va en pour l' encadrement parce que mbay mi ngi yàqoo bi ñu bi fi encadrement jógee. oui mi ngi koy def mais amul possibilité yi amul les moyens. nga régénérer ANCAR mi nga xam ne dañuy jógee foofu ay Bambey ak feneen ñu former leen. ñoo ñëpp ils seront dans le cadre de l'ANCAR pour encadrer jeunes yi nga xam ne ñoom laa wax on va leur dire mhm. fii ak cinq ans juróomi at il faut ngeen dundal réew <laughs> volontaire mhm. bu leen ñu fontoo ngeen baal ma ci l'expression mhm. na ngeen dundal réew mi ma dem ci fleuve bi nag ma neew ci fleuve bi fële Sénégal. qui regorge d'opportunités yoo xam ne. Mhm. Euh, depuis ñuy nekk école primaire di jàng ba léegi on en parle mais exploitation bi ci waram amu ci. Mhm. dama am dama dama dem benn jour Espagne. Mhm. boobu maa ministre de l' agriculture visité pare la région de Cordoba ba may waaj a dem gars ñi tëye ma ne ma monsieur le ministre on est venu chez vous on a vu yéen yéen a am richesse ñun amuñu richesse. ma ne qu'est-ce que xaw dara yor nekku fi mais fexe nañ ba def ko mu ñetteelu région boo xam ne moo tee agriculture Espagne mu ne ah suñu amoon ndox moomu ngeen am alors depuis lors on parle du riz mm -hmm. on n'arrive pas régler cette question du riz mais man xam naa li problème fu mu nekk d'abord mm. y a un problème économique booy bay euh, un hectare de riz xam nga lu mu lay indil mm. en général trois cent mille francs en quelques mois. Mm-hmm. booy bay eh, un hectare de patate douce mën na la indil ba 7 millions. ñu bay ko bari yóbbu ko Mauritanie ñu dugalaat ko di ñu koy jaay biscuit. Mm-hmm. booy bay un un hectare d'oignon d'oignon lu mu boni boni mën nga ci am 4 millions. et les les les aménagements yi nga xam ne moom la ñu def sur le fleuve Sénégal la le delta dafa cher. boo ko comparé ak ñi nga xam ne moom la ñuy def Mali et c'est les mêmes entreprises je vais dire à la CSS et mm-hmm. mais parce que je n'avais le pouvoir je ne comprendre mm-hmm. que CSS di def canne à mi nga xam ne moo gën a profond téeméeri yoon ceeb mm-hmm. ñoom li ñuy aménager mu gën a yées li nga xam ne moom la ñuy aménager ceeb ce n'est pas normal il faut qu'on revoie la je vais dire à la CSS ce qu'on vous a donné comme avantage depuis longtemps c'est beaucoup il faut ngeen participer à l'aménagement pour ñu bay ceeb ñu bay ceeb et j'irai même jusqu'à faire mhm. en sorte que canne à sucre bi paysans yi de ko bay ce n'est pas normal ce n'est pas juste à mon avis ñu nekk toujours des, des ouvriers agricoles d'accord comme ça se fait dans beaucoup de pays et en plus de cela mm -hmm. quand on aura aménagé beaucoup pour le riz je vais des aménagements dans le fleuve pour que ñuy bay maraîchage ak horticulture mm-hmm. parce que en agriculture des fois jaay moo gën a jafe euh, produire mm-hmm. te Sénégal yàlla def na ne amoon am na marché am na circuit distribution sur le plan international boo demoon am na période même tomate cerise bi ñun ñoo nekkoon position deuxième sur le plan mondial derrière Israël am na ay possibilité jaay suñu mango suñu si et cetera mm-hmm. alors que dans le fleuve Sénégal en plus du riz mm-hmm. il faut que ñu def maraîchage de l'horticulture parce que liñ ci mën a exporter mm-hmm. moo ëpp junni yoon li nga xam ne bëgg nañ ko économiser ci mbayum ceeb d'accord si horticulture boobu agro business yi nag lan moo si sa xalaat parce que tey dañoo jël ay hectares yu bëri jox ko ñoo xam ne bitim réew lañu jógee ñoom ñuy bay fii di ko jaay fii di concurrencer producteurs locaux yi waaw xam nga yooyu itam sa ça demande de l'intelligence l' agriculture fami familiale mënoo def Sénégal te doo ko def c' est impossible parce que li ma wax sànq mooy boo jëlee soixante dix à soixante pour cent ñooñu ñëpp ci mbay mi la ñuy yëngatu alors ku nekk da nga koy jox vocation agrobusiness c' est pas parce que dañ fi war a nekk agrobusiness di créer des ouvriers agricoles di les maltraiter c' pas possible mm-hmm. tout ça ça doit bien pensé. mënul bañ a ñàkk am pour de la vérité il faut qu'il y la grande production parce que on a besoin de ressources xaalis boo xam ne day dugg ci réew mi ah, loolu waaye moom laa lay wax ne parce que damay battre pour que il n'y ait pas d'ouvriers agricoles comme ça moom laa la wax actuellement ci CSS il faut que ñu jàngal baykat yi boo demee ay Brésil ak yooyu mais euh, paysans yi ñooy béy canne sucre donc l'un n'exclut pas l'autre. non ça n'exclut pas mën a ànd. alors on a bouclé Pierre je crois. waaw def nañu une heure d'émission ah bon déjà euh, partie bi ñu war a def ci euh, ci ci wàllu tubaab. Mm-hmm. mais ba ko bala ko Pierre di tijji rek. xam nga euh, tubaab nag moom Moustapha. <laughs> dégguñu ko nañu koy làkk. wolof président Macky Sall wax na ne seen wolof bi ak seen langue yi ñuy làkk il faut ñu fexe di ko bind xaw ma nu mu ko expliquer la alors que ñu ngi koy bind depuis voilà ah. mais mais bon <laughs> <laughs> moo li ma ci bëggoon wax rek Pierre très rapidement bala ngay euh, commencer hmm. moo di ne euh, suñu mbokk mi suñu mag suñu xarit Pape hmm. Sané euh, nekkoon ci loxoy yoon lu war naa ëpp ay bés tey hmm. xam naa ne nit ñi dañ ciy xaar confirmation effectivement tey la jàkkaarloog àttekat bi daf ko inculpé mais daf ko placé su euh, sous contrôle judiciaire maanaam Pape mën na ñibbi këram mais buñ ko soxlaa euh, dañ koy dañ koy woowaat di ciy gërëm bu baax tous les avocats yi nga xam ne ñoo soloon seen robb tey bokk na ci Cheikh Niass mhm. pour dem taxawu ko ba jële ko ci jafe-jafe yooyu di sant yàlla alhamdulilah j'en profite pour wax leen ne man voilà c'est de la presse <coughs> man su ma jëloon pouvoir waaw fas yéene def pour man presse facteur de développement la mhm. ni ñuy defee investissement dans l'éducation dans l' agriculture la ñu war a dans la presse c' est pas un milliard deux milliards et cetera ci sama xalaat l' état dafa war a def une sorte de convention avec les organes de presse. Mm-hmm. convention boobu ñu leen voilà man cinquante milliards a ngi nii. Mm-hmm. wala soixante milliards mi ngi nii. mais dama bëgg ngeen remplir ngeen di remplir mission de service public. C'est que les médias font. Là, attends, je, je, vais vous expliquer. Mmh. Je vais vous expliquer. Mission de service public. Mmh. Aider l'État du Sénégal. Par exemple, li ma wax léegi ci mbay mi. Mhm. Pour consommer local. ma ne leen ci contrat bi de dañuy def par exemple benn yoon ci weer wi. toute la presse sans exception. de telle heure à telle heure. Mhm. radio télévision vous ne parlerez que lu rek ngeen di wax. ah bon pour ñu defal communication. gouvernement oui oui attends loolu rôle presse la. oui attends. Hmm. moo tax ma service dama la service public. Mhm. dañu nekk ci pays en voie de développement. bokku ak tubaab yi sans que ma toucher à votre liberté mais il faut ngeen jàppale gouvernement bi quand même pour que réew mi jëm kanam. Mhm. parce que la propagande la communication pour changer les habitudes. mais c' est nécessaire te presse. Oui, les, les médias mën nañu aider à la sensibilisation. Oui, mais, attendez, mais pas la propagande mais pourquoi pourquoi pas parce qu'il de propagande pour le pour l' intérêt du pays. d' accord que nit ñëpp nañu lekk ceeb Sénégal. que nit ñi nañu lekk mboq. que nit ñi nañuy faju bu ñu feebaree que nit ñi nañuy béy seen comportement ci tali bi parce que ce sont des infrastructures yoo xam ne dafa diis. que nañu bu ñu toppatoo jàng yooyu xewoon na bi temps wu sakkanal mais waaye ouais, ça. ku ko ci def ku ko ci def y aura un organe de contrôle. Mm-hmm. ah man moi je dis la vérité y aura un pas de chantage. chantage non pas de chantage. ku deful doo jot il faut ngeen jàppale ñu propagande. non parce que a deux volets. Mm-hmm. y a bi mooy l'aide à la presse c'est différent. Mm-hmm. mais bii je dis investissement ah, la presse en tant que facteur de développement. et ça vous laisse la liberté ngeen def li ngeen bëgg. du ma ñëw pour corrompre et cetera waxal leen gouvernement bi dama bëgg ngeen digale ak dimbale askan wi. Mhm. mais pour dimbale askan wi il faut njox leen les moyens. la formation des journalistes da ciy bokk. Mhm. continuer le matériel dont vous avez besoin l' investissement daf ciy bokk. Mhm. pour que